asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe bu laaj ak tontu ñoo leen di nuyu di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm ginnaaw bu loolu jàllee comme niñ ko baaxoo àndee ak yéen samedi bu jot ci waxtu wi ñëwaat nañ ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala pour tontu laaj yi nga xam ne eh, mbokk yi jot nañ ko fee yónnee diggante midi ba trois heures. incha allah kon eh, ci kanam tuuti rek ñu ñëw ngir tontu laaj fi jot a rot bu njëkk bi mbokk mi nee way juróomu góor daa faatu eh, waaye day gént di ko gis lu bari ci ay nelaw eh, nee na it moom da koy faral di ñaanal lu bari nee na sax dana koy jàngal ñeent fukki laa laas benn bis bu set mu laaj ba xam lan lañ koy wax ci gént googu muy gént di gis waajuram lu bari waaw gént gi day eh, mën nay tekki xay na eh, di bëgg nga ñaanal ko bu ko defee kon ñaan googu nga xam ne yaa ngi koy def bis bu set te di ko yéene yool bi lañ lay digal rek nga saxal ko oh, te lu mu gën a bari itam moo ci gën nga xam ne it sa wajur woo faatu ay jëfam dagg na bam des ñett comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon te mooy eh, jëf ju baax jum fi bàyyi woon nit ñi di ci jariñu yoon bi di ko fa fekk wala xam-xam mu fi bàyyi woon wala bokk ay doom ñu fi bàyyi ñu ko ñaanal kon ñaan googu daal mooy li ko ëppal solo nga gën cee góorgóorlu di ko yokk ñaan yooyu te xam ne itam ma ngi cee jot te itam bokk na ci yi ko gën di jariñ fam nekk tey eh, loolu rek lañ ciy tontu wallahu taala laaj bi ci topp mbokk mi wenn baytu sëriñ Tuubaa laaj mu ne fi sëriñ bi waxee ne axfa liya sirral masuna llaahu xobban wa laa ilaha illa li wax ne yàlla wan na ma asirrul masuun eh, mu ne lan mooy sirrul masuun waaw sëral masuun day ñu nag yow yow mi koy laaj ñoo ci yem dëgg-dëgg xawma lan mooy sirrul masuun ndax sëriñ bi noonu la ko tudde rek te gisuma itam fu ko leerale wax ne lii laa ci jublu wala boog lii mooy sirul masuun euh, kon damay dellu ci lam waxoon rek moom sëriñ bi wax ne euh, kalaama law li yaay lastu afhamu li anna ni ana ana wahum humu nee na waxi wàllu yi waxi gaa yu baax yi léeg-léeg am na ñoo xam ne duñ ko mën a comprendre duñ ko mën a xam euh, mu ne nag su la jaaxalee ñu wax loo xam ne xamoo ko rek neel Eh, ñoom daal ñooma man man laa wala ñun ñu na kon xawma lu sëriñ bi jublu ndax gisuma fu mu ko leerale wallahu taala alam laaj bi ci topp mbokk mi la ne dafa dégg ñu ne kuy takk ak kurus ci sa baat loolu day yeexal sukuraat booy faatu bu dee ku koy takk ci loxoom it loolu day tax a ñàkk muy laaj ba xam ndax loolu weer na wala déet tontu bi mooy loolu nekkul lu weer kurus di ko takk ci baat mbaa di ko takk cib loxo amul lenn lu muy sabab jullit bi kon wax la joo xam ne wax ju wérul la wallahu taala laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj nee na dafa dégg ñuy wax ne maam Cheikh Ibra Fall daan wax ne ku séyeg sa soxna noo sangoo baax na waaye ku séyeg sa soxna Euh, noo sangoo rek baaxut muy laaj ba xam lum ci jublu euh, pour tontu laaj boobu li ñuy njëkk wax mooy wax jooju man wóoruma ba xam maam Sharafa mi ñu ko askanele moo ko wax walla déet loolu des na maa leer ndax maa ngi koy doogu dégg tey bu fekkente ne wér na ne moo ko wax itam li ma yaakaar ne moom la ci jublu mooy jàngale jàngale ci ne daal képp koo xam ne mooy nga yàlla njaaloo ba séq ak jigéen goo xam ne koo ko am nga bàkkaar bu mag a mag boo xam ne sangu dindiw ko mooy noo sangoo baaxul mi ngi jublu sangu dindiwut bàkkaar boobee ki nga xam ne dafa séq soxnaam nag séeg moom kooku moom nu sangoo baax na ndax sangu farata moom la cay farata rek mooy nga yéene ba noppi yaram yépp yëpp daj kon noo ko defee baax na kon xëy na bàkkaarub njaaloo la bëggoon a wane ni màggee ba tax mu ne Eh, ku ko def mënoo sangu ba set day xaw a niroog li yonente bi sallallahu alayhi wax ci benn xadis ne képp koo xam ne dangaa dog ci bëccëgu weeru koor te tay ko soo wooroon sa dund gépp sax mënoo koo fay loolu lam ca jublu mooy réyaayu bàkkaaru dog ci bëccëgu weeru koor te tay ko te amoo ngànt yu bàkkaar bi la bëgg a jàngale waaye loolu ku ko def xam ngeen ne eh, day kafaara benn mu la juróom benn fukki miskin mbaa mu woor ñaari weer su ko defee bàkkaar bi wàcc ko waaye nag lim jublu ci mënoo koo fay donte dangaa woor sa ngir dund tam mooy eh, bis boobee nga dog muy bëccëgu weeru koor bu moom farata la woon tey itam ci jamono weeru koor la woon te kenn mënut a fay boru koor ci biir weeru koor kon moo tax mu ne soo wooroon sa dund gépp te mënoo koo fay ndax woor ci bëccëgu weeru koor boobu moo gën ci fudut moom kon xëy na am njàngale rek la ci jublu bu fekkee wér na ne moo ko wax wallahu taala laaj bi ci mbokk mi koy laaj dane dafay dégg ñuy wax borom ñeenti ngir yi muy laaj ba xam ñan ñooy borom ñeenti ngir yi ak lan moo waral ngiir yooyu def naa loolu la laaj euh, tontu bi mooy borom ñeenti ngir yi eh, ka ci jiitu mooy al imam abu xanifa dëkkoon euh, ci iraq muy fi ñuy wax iraq ka topp mooy al imaamu malik moom itam dëkkoon madina ka ca topp mooy al imaam Shafii yi moom itam dëkkoon eh, Iraq ginnaaw ba mu ñëw Égypte ka ca topp mooy al imaam Ahmad ibnu Hanbal ñooñu bay ñooñu mooy borom ngeen ñeenti ngiir yi nga xam ne ñooy boroom ngir sunna yi am na nag ba tey yeneen ngir ci lislaam yi bokkut ak yooyu lu mel ne azahiriya ak lu mel ne eh, madahibu shia waaye bu waxee borom ñeenti ngir yi moom ñii lañ ci jublu. seen ngir yooyu nag li ko waral rek mooy ñii dañoo nekkoon ay boroomi xam-xam yu mag a mag daan jàngal nit ñi daan ubbee ci diine lépp lu la nit laaj buñ ko xamee wax la la ca yàlla wax seen bari xam-xam nag ak seenu sell ak seenu ragal yàlla tax na ba nit ñi daal leen roy nga xam ne kenn ku nekk ci ñoom amoon nga ay donga yu baree baree bari ay junni junni nit di jële ci yow nga xam ne day mujj lu xewati rek ci diine ñu ne lii la ci Malik wax wala lii la ci ak Shaafi'i yi wax bi loolu amee nag ñuy dem a dem ba ñoom ñu jóge fii seen dongo ya daan jànge ci ñoom dajale seeni wax da ci dellu saa yu ñu amee lu doon jaaxal ci diine ñu dellu ca la ca Malik waxoon mbaa la ca Shaafi'i yi waxoon mbaa la ca Ahmad ibn Hanbal waxoon mbaa la ca Abu Hanifa waxoon foofu la ngiir yi jóge ñu dem a dem nag léegi ba far nekk am ngir nga xam ne ñoom dañ doon jàngale ngir yàlla ca leen yàlla xamal waaye ñoom jublu woon woon jublu woon woon taxawlu ngir waaye seeni dong nag seen ginnaaw ñoom ñoo dajale seeni wax dema dem ba jàppe ko am ngir nga xam ne képp koo xam ne ci Malik nga jànge la ngay def da nga koy dëppaleeg la Malik wax lam jàngale koo xam ne ci Shafi'i nga jànge la ngay def da nga koy dëppale ak la Shafi'i jàngale yooyu moom mujj nekk ay ngir ngiir yi nag li ko waral nga xam ne moo tax ñu wuute ci yenn àtte ci diine Euh, yu bare moo ko waral bokk na ca léeg-léeg ab xadis ñëw euh, wér ci kii ba noppi wérul ca kee wala ab xadis ñëw kii gis ko te kee moom gisu ko wala ab xadis ñëw amee ñaari maanaa kii dégge ko nii kii dégge ko nee wala ñaari xadis ñëw yu safaanoo kii moom jàpp ne xadis bii moo folli bee kon lu mu jël lay jàpp kii nag jàpp ne déedéet xadis bee moo folli bii kon man lee lay jàpp yooyu ak yeneen ci seenu rawante ci wàllu dégg-dégg tax na ba ñu wuute ci lu bari ci ay at waaye ñoom ñëpp kenn ku nekk la nga wax am nga foo ko teg te itam boroom xam-xam bu mag a mag nga boo xam ne lépp loo wax mas na koo jàpp mas na sukkandiku ndax yonte bi sallallahu alayhi nee na képp koo xam ne dangaa góorgóorlu ci diine ngir jot dëgg ngir xam dëgg ga soo amee dëgg da nga am ñaari tuyaaba bu fekkee amoo dëgg ga itam dangaa juum ba wuuteeg dëgg ga da am benn tuyaaba kon seeni wax bu ci waay jàpp rek baax na fu ci waay askanoo itam baax na loolu mooy tontu ci euh, tënk wallahu taala laaj bi ci topp euh, ndaamkan moo ko laaj mu ne ki nga xam ne dafa am ku muy faral di nuyu fu ñu dajee mu jox ko loxo waaye nee na fu mu ko nuyu fu mu ko nuyoo du ko fay te itam saa yu ko joxee loxo du ko de du ko jox mu ne ndax kooku daan nuyoo euh, mën naa dem ba far bàyyi nuyoo boobu bañ a nuyooti wala déet liñ koy tontu moom mooy déedéet bu mu bàyyi nuyoo bi nay nuyoo rek moom bu fekkee nangu ko jox loxo itam fu mu dajeek moom moom na ko wax asalaamaaleykum ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dëgganut ci benn jullit muy gàddaay mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan dal ne eh, ñetti fan yoo xam ne dañuy dajee di gise te kenn du faale sa moroom mu ne bu loolu amee jullit ba nga xam ne moo njëkk nuyu morom ja kooku moo gën kooku moo gën ca yàlla moo ëpp ay tuyaaba loolu moo tax ki nga xam ne saa yoo ko nuyoo du la fay itam yow moom bul bàyyi del nuyoo foo toll rek ndax loolu la diine digal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale mooy sel man qata'ak képp ku lay dagg ak di la gàddaay di la bàyyi yow moom dee ko jokk kon del nuyoo su ko defee yàlla di la bindal tuyaaba rek yow foo toll te bu fekkente ne tey it mën nga koo laabiire nga laabiire ko waaye itam nga gëstu itam lu tax du la fay nga gëstu lu tax boo ko nuyoo du la fay ndax mën naa am da koo tooñ te yëgoo ko bu fekkee da koo tooñ nga jégglu ko loola ndax seen diggante mën a baaxaat bu fekkente ne nag xëy na leneen tax mu mere la ba boo ko nuyoo la fay te tooñoo ko defoo ko dara itam yow continué di ko nuyu te te bàyyi te di ko laabiire lépp da nga cee ame tuyaaba su la wuysee bu la wuysu itam da nga cee tuyaaba kon loolu moom ma tontu bi wallahu taala laaj bi ci topp euh, yaay Sooda Kan moo ko laaj euh, mu ne euh, koo xam ne danga yeex a julli ñaari rakkay fajar ba julli suba jot dafa dégg ñu ne dangay julli suba ba noppi bu jant bi génnee nag nga doo ko fay ñaari rakkay fajar yooyu nga xam ne naafila la woon mu ne ñi nga xam ne nag dañuy nelaw ba bët set ba jant bi génn ñu doog a yeew Euh, nan la ñuy def ak ndax buñ jullee suba julli ko dina baax wala déet waaw koo xam ne danga nelaw ba jant bi génn nga xam ne jullik fajar ak jullik suba yépp raw na la soo yeewoo moom li njëkk a def mooy julli ñaari rakkaay suba yi mooy ñaari rakkaay farata yi ba noppi bi nga xam ne ngay jàng faatiya ak saar te béral ko muy jàng ko ca kaw su ko defee boo noppee ci loolu nag soo bëggee fay ñaari rakkaay fajar ya fekk jant bi génn na Euh, nga fay ko saa yoo yeewoo daal fekk jant bi génn moom ñaari rakkaay suba yi nga njëkk jul ndax mooy farata ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne képp koo xam dafa nelaw mbaa mu ba fàttali ko ko mbaa mu yeew nelaw na ko fay ca saasa saa yu ko fàttali ko ca saasa koy fay daal ne amul lenn lu ko man a kafaara amul lenn lu ko mën a euh, fay lu dul mu fay julli yooyee rek moo tax saa yu yeewoo rek fekk julli suba paase bala ngaa def dara moom njëkk la julli ñaari rakkaay suba yi soo ko jullee nag dina baax insha allah ndax julli ko la faatoon la fekk nga doon nelaw nga fay ko euh, su ko defee boo noppee nga doog a julli ñaari rakkaay euh, fajar yooyu nga xam ne naafila la woon soo ko bëggee fay moom tam nga euh, fay ko di xam le ne bu fekkente ne ay nelaw moo tax ba julli woo ko nga xam di sa coobare suba mën nga caa am bàkkaar mën nga caa bañ a am bàkkaar mën nga caa bañ am bàkkaar waaye nag bu fekkente ne ak càggante moo ko waral moom ba mu raw la moom julli suba googu loolu bàkkaar bu mag a mag la ndax moo yeneen julli ñooyam julli goo yeexee te amoo ngànte rek da nga cee am bàkkaar bu mag a mag wallahu taala am laaj bi ci topp euh, mbokk mi koy laaj nee na ndax liggéey ci ay stade yi ñuy footballé mbaa dafay baskete daggan na liggéey boo xam ne bu daggan la lu mel ne di fomp bank ya euh, ak yu mel noonu hmm, tontu bi mooy euh, bu fekkee la muy def moom daggan na rek lu mel ne loolu mu wax fomp ay banc nga xam ne eh, liggéey bi moom dagan na su boobaa loolu dara nekku ci doonte nag li gën a sàmm ci moom mooy mu bàyyi ko te xoole beneen liggéey loolu moom mu gën a sàmm mu gën a wóor waaw waaye daal jëmmi liggéey boobu kese kese kese moom nekkut lu araam ndax jëmmi football ci boppam wala basket ci boppam nekkut lu araam lay tax mu araam mooy ya ca yaraxte bokku ca nga xam ne dafa araamoon ba noppi mooy lu mel ne carte nga cay dugg ba feeñal ay awra ya cay dugg wala gaañante ba cay am wala boog xeexoo ya cay am wala féewale gu muy féewale xoli e, diggante ñaari équipe yee football yooyu moo tax charia araamal ko wala jaxasoo ga fa góor ñaak jigéen ña jaxasoo wala e, maanaam sànq ngañ fay sànq waxtu julli ak yu mel noonu kon yooya moo tax football araam waaye bu fekkonte ne football lañ koy def wala basket te yi ma wax yépp benn amu ca suba loolu dara nekku ci moo tax jëmmi football ci boppam nekkul na moo araam wala basket kon di liggéey ci teere bañ koy defee itam nag moom du nekk lu araam la ci am solo rek moom mooy nga bañ a dugg ci loo xam ne day participer ca bàkkaar yooyee muy participer ca carte ga wala sànq julli ga wala feeñal awra loolu rek moom moo ci am solo wallahu laaj bi ci topp mbokk mi nee na ndax ab jarbaat bu nijaayam faatoo mën naa takk soxna nijaayam soosu wala déet waawa bu fekkee aramu ko daal ci nàmpandoog moom mbaa mu bokk ak moom bokk goo xam ne day tax mu araam ko moom mën na koo takk liñ bëgg wax moom mooy yor gi ko nijaayam yoroon kese kese kese nekkul ne moo koy araamal ci moom kon bu fekkee amul leneen ngànt lu fa nekk lu sariya tere woon kon dina ko mën a takk wallaahu laaj bi ci topp euh, mbokk mi koy laaj nee na euh, dafa gis ñoo xam ne seen waajuru góor dafa faatu te bim faatoog léegi yàgg na waaye boobu ba léegi kenn miiraasagu ko mu laaj ba xam lan la diine wax ci yeex a miiraas ku faatu tontu bi moom mooy loolu dëgganut yeex miraas miiraas ku faatu dëgganut lu dul na dañ koo yeexe ngir maslaha maanaam ngir intérêt bu ca am boo xam ne moo tax ñu yeexe ko tey itam ñu war a doon ñëpp ñoo ci dëppoo ñoo ci juboo bu fekkee ñu war a doon alal ji ñëpp juboo nañ ci ne bëggaguñ koo miiraas léegi Eh, te mu am maslaxa bu tax intérêt bu tax ñu bëgg koo bàyyi yeexe ko suba moom loolu dara nekku ci waaye bu loolu amut nag moom dëgganut ñu yeexe séddale alali eh, ku faatu rawatina bu fekkente ne ñi ko war doon soxla nañ ko am ku koy gàllankoor su loolu amee moom nañ xam ne loolu lor la tey itam bàkkaar la ndax mi ngi xañ ay nit seen xàq joo xam ne ñoo ko moom eh, loolu mooy tontu bi wallaahu laaj ji topp Galas Mbeng moo ko laaj mu ne jàng alxuraan ci jamono yi ngay nelaw maanaam jamono booy bëgg a nelaw ngay jàng alxuraan ngir léemoo ko te fekk booba yoroo jàpp lan mooy àtte bi waaw loolu dara nekku ci ndax alxuraan may nañ nga jàng ko te yoroo jàpp moo xam danga koy léemoo moo xam sax euh, léemoo woo ko waaw kon liñ aaye moom mooy di ko laal di laal kaamil bi te jàppoo waaye di tare noonu rek ci li nga mokkal euh, loolu moom dara nekku ci Euh, ki amee janaba sax nga xam ne dañ koo aayoon muy jàng alxuraan te euh, li fekk kooku sax mayan nañ ko ne ko bu fekkee nag am na ay aay yu bañ a fàtte wala boog ay aay bëgg a jàng ngir léemu wala ngir mocc su boobaa danañ ko ko may mu jàng ko kon kii nelaw su jàppee ak bu jàppul yépp mën naa jàng lu bëgg a jàng ci alxuraan ndax loolu dagan na su fekkoon dafa amee janaba sax ba tey may nañ ko mu jàng ay aayaat yoo xam da koy jàng ngir léemoo ko wala ngir ñaan ci doo ko nelaw wallahu laaj bi ci topp mbokk mi dane koo xam ne da doon lekk fàttee wax bismillaahi dem ba ci digg ba mu fàttaliku ko nan lay def waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim jàngale mooy kuy tàmbalee lekk na nga wax bismillah bu fekkee da koo fàtte ci tàmbali bi ba ca biir waaw ba ca digg ba nga doog ko fàttaliku te bàyyeegoo nga wax bismillahi awwaluhu wa axiruhu loolu la yentu sallallahu alayhi wasallam jàngale ci xadis bu wér boo xam ne Abu Daawud ak Tirmisi ñëpp gën nañ ko jëlee ko ci Aïcha soxnaam kon kuy lekk fàtte wax bismillah ba ci digg ba nga fàttaliku ko da ngay wax bismillahi awaluhu wa axiruhu daal di continuer sax lekk wallahu am laaj bi ci topp mbokk mi nee na lan mooy àttab euh, ñi nga xam ne bu ñuy bëgg a am soxna dañuy dem ci ab seetkat mu leen di seetal ba xam ndax seeni wërsëg dëppoo na wala déet eh, ak yu mel noonu tontu bi mooy wax dëgg yàlla loolu xamuñu àtte bi ci diine maanaam gisuñu ko fenn ci diine fu ko diine jàngalee listixaar bi nga xam ne daal moom lañ xam ci diine mooy bi bi sallallahu jàngale mooy kuy bëgg a dugg ci mbir mu mën a doon mbir mu ne amal solo nga julli ñaari rakka wala ñeent soo paree nga jàng ak ñaan ñaan nga lañ koy wax bokk na ca yàlla yow yaa xam man xawma mbir mi mi bëgg a dugg bu fekkee moo gën ci sama diine gën ci sama àdduna na nga ma ko yombalal te defal ma ci barke bu fekkee gënul ci man gënul ci sama diine gënul ci sama àdduna nanga ma ko fanqal te wutalal ma lu ko gën bu ko defee daal wakkilu ci yàlla nag bàyyi kook say mbir te dox jëm ca mbir ma di sabablu bu ko yàlla sottalee nga xam ne moo gën ci yow bu fekkente ne yàlla sottalu nga xam ne daa gënut loolu lañ xam ci listixaar waaye di xool ndax wërsëg yi dëppoo na wala déet wala seen seeni biddiw dëppoo na wala déet loolu moom gis ñu fenn fu ko yonte bi sallallahu amul fenn tam fu ñu wax ne mas na koo def ci bi mu bëgg takk moom amoon na soxna bari yoroon na juróom-ñeenti soxna wala sax fukk ak benn waaye gis ñu waxee ne laata muy takk kenn ci ñoom def na loolu ay saxaabaam it gis fenn fu mu waxee ne def na def nañ lu mel noonu kon loolu lañ ci mën a tontu laaj bi ci topp mbokk mi la ne béréb bi sujjóot yi ci alxuraan béréb yi nga xam ne booy jàng alxuraan ba àgg fa dangaa war a sujjóot moom la bëgg ko ko ko wax waaw béréb yooyu dana xaw a gudd xam naa ci e, tontu yi e, moo tax dinaa la wax rek saar yi nga xam ne ci la yooyu nekk e, béréb yi ñu war a sujjoot mat na fukki béréb ak juróom ak juróom fukki béréb ak juróom ci alxuraan mooy ñu war a sujjoot sujjoot boobu nag ñu fàttali na luñ sopp la waaye nekkul farat kuy jàng alxuraan ba ak si sopp nañ ci yow nga sujjoot tey itam ne fekk nag nga laab ba noppi jublu xibla waaw loolu luñ sopp la eh, fukki béréb ak juróom yooyu benn bi mi ngi ci suratul laaraaf mooy walahu yasjuduun beneen bi mi ngi ci suratul raadi wal asaali eh, beneen bi mi ngi ci eh, laa yastakbiruuna ci suratul naxli beneen ba ma ngi ca al isra suratul isra benn mi ngi ci suratul maryam benn itam mi ngi wala boog ñaar ñaari sujjoot mi ngi ci suratul xajji benn mi ngi ci suratul namli benn mi ngi ci suratu sajda benn mi ngi ci suratu soit dañ koy wax Daawuda benn bi mi ngi ci suratu Fussilat benn bi mi ngi ci mi benn bi mi ngi ci suratul Inshiqaaqi eh, benn bi mi ngi ci suratul Alaq te mooy Iqra kon fekk béréb yooyu ak juróom soo xoolee kaamil bi da nga gis sax ñu marqué la ko bind fa baatub sajda wax na ne fii bérébu sujjóot la saa yu jàngee ba àgg fa fekk nga laab te jublu xibla sopp nañ ci yow nga sujjóot boo sujjóotee itam sopp nañ nga wax sajada wajhi lillazi xalaqahu wa shaqa samahu shamaahu wa basarahu fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin taala laaj bi topp mbokk mi ab aayab alquran bu nekk suratu moom lay sàkk ko ko leeral mooy fi yàlla waxee ne duaa ar rasuli ka duaa i baadikum qad yaclamu allahu alladina yatasallaluuna minkum liwaasa falyahdar allazina yuxaalifuna an amre an tusibahum fitna aw yusibuhum azabun alim foofu yàlla daf waxak wax ak yi ne leen wala boog naafeq yi naafeq yi ñoo ko taxoon a jóg ndax dañ daan def buy ñëw kër yonante bi sallallahu diko wasallam di ko buñ tollee fële di ko woo naan ko yaa muhammad yabna abdallah yàlla ne leen nag bu leen di woo yonante bi comme ni ngeen di woo seen morom wala comme ni ngeen di wootante seen biir mooy bu ngeen koy woo dina wax yaa nabiyallah wala yaa rasulallah waaye bu leen koy sàllawlu di ko woo comme ni ngeen woo wootante seen biir ah, am ci ñoom itam ñoo xam ne bu yonante bi daan xutba ci jumaa ji ak ajjuma eh, dañ daan làqutu di génn ndànk nag di rocceeku ndax yonante bu daan xutba kenn dawut nangoo kan kenn dawut ñemee jóg lu dul nga taala sa loxo ñaan ndigal ba mu may la ko nga doog a dem waaye dafa am ñoo xam ne nag ci naafeq yi ñoom bu yontu daan xutba dañuy rocc ndànk-ndànk di làqatu di génn ngir bañ yontu gis leen yàlla ne leen qad yaalamu llahu alladina yatasallaluuna minkum liwaasa yàlla xam ne ci yéen ñi nga xam ne eh, dañuy rocciku ndànk di génn buy xutba mu teg ci nag ne fal yaxdar alladina yuxaalifuna an amri an amri ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigalul yonante bi nañ def attention nañ moytu seen bopp ndax bu moytu seen bopp kat antu si boppam fitna fitna da leen ni dal te mooy fitna ci àdduna mbugalum yàlla fii ci adduna aw yu yusibahum azabun alim wala boog bu leen fitna dalu ci àdduna itam bu dajeeg seen borom yi seen borom da leen teg mbugal bu mettee métti kon nañ moytu seen bopp di wuuteeg ay ndigalam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tënkub aay bi wallahu laaj bi ci topp mbokk mi n na kuy jàpp dem ba toll ci raxas tànk yi mu ngelawal nan lay def ni muy def moom mooy day jàppaat wallahu taala laaj bi ci topp mbokk mi nee na dafa dégg ñu ne kuy sang cangaayal ajjuma dangay mujj say tànk dangay mujj raxas tànk ya mu ne nag kuy sang cangaayal ajjuma njëkk raxas tànk ya tan mooy àtt bi waaw loo ci def baax na sangu moom moo xam sangu faratala moo xam cangaayal ajjuma li ca am solo mooy nga yéene ba ngay sangu la nga bëgg a def nga yéene ko bu dee farata nga yéene sangu farata bu dee ajjuma nga yéene sangu ajjuma ba noppi yaram bi fépp daj ak ndox te nga bomb ko ba noppi itam def ko jox fa maanaam bu ko dagg-daggee bul sang lii génne dox sa yi te ñëwaat loolu bu amee rek càngaay li baax na moo xam càngaay li ajjuma la moo xam càngaay li farata la kon loo ci def rek baax na moo xam da ngaa njëkk tànk moo xam da nga koo loo ci def incha allah baax na wallah Euh, mbokk mi koy laaj daf ne koo xam ne dañ koo andilu yàpp muy sikk sàkk ba xam ndax yàpp mbaam la wala déet te moom muy ab jullit nan lay def ndax da cay lekk wala déet nee na sax am na ko fa teewoon koo xam ne nee na moom bu mosee yàpp yu dina xam ba xam yàpp mbaam la wala déet mu mos ko ba ne leen lii du yàpp mbaam ak koo xam ne dangaa lekk ci yàpp woo te laajoo lan mooy sab at waaw ku ñu yàpp ngay sikk sàkk ndax yàpp mbaam la wala déet dangay xool fa yàpp woo jóge ba xam bu fekkente ne fa muy jóge la ëpp ci yàpp yay jóge ci ñoom yàpp mbaam lay doon kon waroo koo lekk yow jullit bi bu fekkente ne nag eh, la ëpp ci lay jóge ci ñoom du doon yàpp mbaam yàpp lu dagan lay doon su mën ngaa lekk ci loolu sax xam yàpp yàpp wumu bu fekkee it am na ko fa tee koo xam ne nee na xam na bu dee yàpp mbaam la wala déet mu ñam ko ne lii du yàpp mbaam mën ngaa doy loola mu wax te nga lekk rafet njort donte nag li gën moom ci jullit bi mooy sàmm mooy bu fekkee sikki sàkka nga ci yàpp wi ndax yàpp mbaam wala déet bu fekkee sikki sàkka dafa dëgër nga xam ne am na yu bari yoo xool ay màndarga ba jàpp ndal li war naa ma nekk yàpp mbaam su boobu bàyyi gi mooy gën bàyyi gi moo gën te sàmm ndax yonent bi sax dafa wax ne euh, li dagan leer na naññ li araam leer na naññ la ca diggante na mooy lënt yi daal ne yonent yooyu nag moom ñu bari dañ ciy tàbbi waaye ku ko bàyyi moom xamal ne sàmm nga ñoŋal nga sab der ñoŋal nga sa diine kon li gën moom mooy bàyyi ko waaye nag boo ci lekkee itam nag ci eh, ñàkk xam wala boog amoo ci lu la wóor wala nga lekk ko ci rafet njort jàpp na du jàpp mbaam ba tey doo ci am bàkkaar wallahu taala laaj ci topp eh, mbokk mi koy laaj dafa ne lan mooy charti tuub charti tuub boroom xam-xam yi niñ koy jàngalee mooy eh, kuy tuub nga rëccu la nga defoon la nga defoon ba koy tuub nga rëccu ko euh, ñaareel ba mooy nga bàyyi ko ca saasa bu fekkee yaa ngi ko doon def wala boog jumtukaay yi nga ko doon defee mi ngi ci sa kër nga koy génnee kër gi nga fas ko yéene bàyyi ci saasi euh, ñetteel bi nag mooy nga fas yéene bañ koo defati mukk li des sa dund mag ñi daan ko misaal ne tuub mi ngi mel ne ku joggi aw xal mooy su xamoon na lii aw xal la du ci teg tànkam te ba mu ko xamee. tegg ne ko ca saasa te itam du ko ca dagate ba mukk ko loolu moom mooy tuub wallahu am laaj ci topp mbokk mi nee na ndax daga na ci jullit bi muy ñaanal ab yéefar bu feebaree di ko jàngal lu mel ni ne alquran wala ay ñaan yoo xam ne ñaani diine la ñaani lislaam la ngir feebaram boobu wér li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy loolu daggan na ndax jàngal ab yéefar ay ñaan wala moccal ko moccu moccu bu baax maanaam moccu diine Eh, ngir saafara mu saafara ci feebaram loolu dañ koo nuroole ak jox ko saafara rek maanaam jox ko lu mel ne lem wala jox ko lu mel ne ay doom mbaa jox ko lu mel ne pikiir ngir mu wér ci feebaram loolu dañ ko nuróoleel ba tey itam ñu ne eh, li seen tegtal mooy xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixu Buxaari ak Buxaari ak Muslim jële ko ci Abu Saïd al-Xudri mu ne saxaaba yi mas nañoo àndi di dox eh, ba romb ab benn quartier ñu sàkku ñu dimbali leen waa quartier ba bañ ba waa quartier ba bañee mu nas rek am ci waa quartier ba ku fa jiit fet e, waa quartier bi ñëw ci saxaaba yi ne leen xanaa xamu leen lu ngeen mën a moccale suñ mbokk mi ñu am ci ñoom ku jàng suratul fatiha ba mu àgg daal koy tifli ka jiit ja e, fet mu daal di wér ñu daal ne leen da ngeen ñuy fay ab gàtt ngeen ñuy fay ñu fay leen ab gàtt Eh, bañ demee wax ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam fekk bi ñu joxe gàtt bi dañ nekk duñ ci def dara lu dul ne dañuy dem ba ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñu laaj ko ci ndigal bañ egg yonante ne leen day jox leen ma sama wàll ci gàtt bi lu doon xamal ne faatiha day faj eh, ñu wax ne it waa quartier booba ay yéefar lañ woon ay yéefar lañ woon kon jàng gu saxaaba jàngal kenn ci yéefari suratul faatiha ngir jiit ju ko màtt ba nopp ñu wax ko yonante bi aayewu leen ko Euh, xanaa sax lañ leen fa neexale wala leen fa fayee da ko da daa wax ñu may ko ci ñu jox ko ci loolu tegtal la ci ne kon jàngal yéefar alquran wala ak ñaan ñaanu diine ngir mu wér ci feebaram loolu moom dara nekku ci euh, kon loolu ma doon ci gàttal wallahu taala laaj ci topp mbokk mi nee na euh, ban aaya ci alquran moom la yàllay wax ne su rafetee njortu ci seen mbokkum jullit ma defal leen jàmm waaw aaya boobu de xanaa man teewlu ma ko li ma xam daal moom mooy rafet njort sa mbokkam jullit moom mm, yàlla digle na ko yonent bi itam digle na ko ay yoon ba noppi tere itam ñaaw njort ban aaya moo ko ci la ko yàlla wax nag teewlu ma ko wallahu taala alam laaj bi ci topp mbokk mi nee na dafa nekk ci ab dëkk boo xam ne dañ fa am ñaari jàkka wala ñaari jumaa benn ba ñu koy wax jumaay wahabiya ba ca des ñu koy wax jumaay ñeneen mu ne bi ñoo njëkk a julli noonu la ko waxee ndax ñi ngi julli une heure eh, yeneen jàkka ja di julli une heure muy laaj ba xam lan mooy àtteb ki nga xam ne dafa julli ci jàkk ju njëkk ji njëkk a julli wala ki nga xam ne dafay romb jàkka ji mujj julli dem ca jàkka njëkk a julli ngir jullee ak ñoom eh, tontu bi mooy eh, jumaay waxaabiya ak jumaay Eh, kene keneen loolu amul ci lislaam jumaa yépp yàllaa ko moom te loolu yàlla moo ko wax ci alquran ci yax bu leer wa anal da lillah jumaa yépp kon yàllaa ko moom dëgg la léeg-léeg ci aada dañuy def jumaa ji bu fekkee mbooloo mi fiy jullee li ci ëpp ci ñoom ñu ngi bokk ci kuréel sàngam ñu koy askan ñu leen askan ne la jumaa jooju di wax jumaay murit jumaay tiijaan jumaay qaadir jumaay sarafiya jumaay ibaadu yëpp dañ koy dégg ci Sénégal waaye nañ xam ne yooyu ay njuumte la te itam seytaane moo ciy jaar rek pour féewa la ñu waaye jumaa yëpp yàllaa ko moom jullit yëpp itam ay mbokk lan innamal mu'minuuna ixwa lu aju ci wàllu waxtu julli wi ñuy julli une heure ñi julli une euh, xanaa faaw dañu xam dëkk ba mu nekk dëkk ba mu ba mu nekk ba tax ñuy julli une walla ñuy julli une heure il faut ñu xam dëkk ban la ndax am na dëkk yoo xam ne xëy na une eh, heure trente dana fekk booba tisbaar jot fa wala une heure wala sax mu paase léeg-léeg ala xaal waxtu julli moom bu fekkee ñoom dañu julli ci waxtu wa rek eh, baax na bu ñu rawantee itam ab diir waaye ku nekk julli nga ci waxtu laata waxtu wee jàll ba tey moom julli nga baax na li muy laaj kon xëy na mooy ñi romb jumaa ji mujj julli di dem ci jumaa ji njëkk julli wala bokk ñi xaar jumaa ji mujj julli di romb jumaa ji njëkk julli dem ci jay mujj julli tontu bi moom mooy romb jumaa dem ci jeneen jumaa moom dara nekku ci ko ko defee sax ci julli baax na doon donte gënut gënut ndax am na ci foqoxaay sax ñenn ñoo xam ne nee ñu julli ci jumaa ji la gën a jege moo gën nga julli ci ji gën a sori am na it ñu wax safaan ba eh, ndax ñi wax safaan ba ñoom dañ ne eh, ndax boo jullee ci jumaa ji gën a sori jéego yi ngay dox ba ngay dem ca jumaa ja yàlla la ci bindal tuyaaba ak jéegoy dellu si gi kon jumaa ji lu mu gën a sori moo jógeen am na ñu wax loolu te seen tegleel itam mooy xadis boo xam ne eh, Ubay na Kaabu moo ko nettali te imam muslim génne ko ci saxiix mu ne am na waaju daan jóge fu sori di julli ji ba am benn bis ci saxaaba yi ku ne ko waaw teemalaa eh, may waruwaay booy war di julli si fii ci jumaa ji a sori waaje nekkoon ci wetu jàkk yi sax damay julli see fii nii ndax dama bëgg jéegoy dox yi ak jéego yi dellu yi yàlla bind ma ci tuyaaba yonente bi ne ko yàlla bind leen tuyaaba ci ñaar yooyu yëpp muy jéegoy dem yi ak jéegoy dikk yi kon loolu tegtal ci ne jumaa euh, lu mu sori sori dox ca danga cee am ab yool ca jéego ya ala kulli xaal julli jumaa ji li gën a jege ak ji gën a sori loo ci def moom sa julli dana baax bu soobee yàlla lan moo ci gën nag borom xam-xam woote nañ ci ñii nee ñu julli ci gën a jege moo gën ndax bañ waa koñ bi jàpp na yow doo julli mbaa doo julli ci mbooloo mi wala euh, muy jur fitna ak tàqali koo wala boog imam bi am nu ko gisee jàpp ne da nga koo xeeb wala daal am njàngam dara doy ba tax nga julli ci feneen yooyu yëpp lañ ciy daw moo tax ñu ne kon julli ci jumaa ji la gën a jege moom moo gën ñu wax na julli ji gën a sori moo moo gën tam euh, loolu moo wax sànq lañ ci wax mooy jéego yi dem ak dikk yëpp tuyaabale kon lu gën a sori moo ci li ci am solo mooy jumaa joo jullee baax na moo xam ji ji la gën a jege la moo xam ji gën a sori la walla laaj bi ci topp mbokk mi nee na xabdu euh, ak saddu lan moo ci gën a wér xabdu mooy julli teg say loxo ci sa dënn sàddulu mooy di julli yoor say loxo euh, tont bi moom mooy ñaar yëpp am na ci mazahib bi ñu koy def bu dee jumhurul fuqaha li ëpp ci borom ngiir yi ñoom dañoo gis ne julli teg loxo sa dënn moo gën te itam mooy na bu dee ngirum imam Malik nag nga xam ne li ëpp ci waa senegal ak réew yi wër Sénégal ci lañ ne ñoom eh, lu bari ci ñoom li gën a bari ci ñoom mooy dañ ne kuy julli dangay yoor say loxo seen tegtal itam mooy wax joo xam ne ku ñu wax Ibnul Qasim nekkoon dongab imam Malik jëlee na ko ci imam Malik mu ne laaj nañ ko moom imam Malik julli teg loxo ci sa dënn mu ne man loolu xawuma ko loolu moo tax ba ñoom maalik yoon yu bari ci ñoom ñi ëpp ci ñoom bu ñu jullee yor seen loxo ala kulli xaal ñaar yëpp bu ci waaye def baax na ndax bu ci nekk ay borom xam-xam ñoo ko wax donte nag li nga xam ne moom la jumhurul fuqaha wax ba noppi tam mu ëpp ay adil la mooy sa xabd te mooy teg loxo ci sa dënn waaye ñaar yëpp baax na te itam ñaar yooyu yëpp euh, xëy na diggante luñ sopp ak sunna lay doon kon def ko euh, wala bàyyi ko du yàq ak julli loolu moo Euh, lu ci waay def baax na donte borom xam-xam yi woote nañ ci am nañ jàpp ne bii moo gën am jàpp ne bii moo gën waaye ngirum Maalik daal ñoom ñoo li ëpp ci seenum ngir moo dañ ne dañuy sàddilu dañ yor seen loxo donte am na ñu bokk ci ngiru Maalik ba noppi itam na gis na alqabdu moo gën a wér te mooy teg loxo ci sa dënn am na sax ñu dem ba jàpp ne loolu mooy nekkoon ngiirum Maalik am na ñu bind ay téere di wane ne qabdu mooy ngirum Maalik te moom la déglee. Eh, waaye loolu moo wax rek sànq moo ci am lu ci waaye def rek insha allahu dina baax wallahu am laaj bi ci topp mbokk mi nee na kii di doon julli takusaan julli ñetti rakka daal di sëlmal muy laaj ba nan lay defara julli gi waaw julli moom saa yoo sëlmalee matul bu fekkee jógee ko fa nga doon jullee tey toogoo fa lu yàgg dangay ngay jógaat rek mottali julli ka soo jullee ba noppi nag nga daal di sujjóot ba'da salaam mooy boo sëlmalee ba noppi nga dellu sujjóot yeneen ñaari sujjóot daal di taayawaat daal di salmal bu fekkente ne nag danga salmal te julli ga matut ba noppi nga toog fa lu yàgg doo koo fàttaliku mbaa nga jóge fa nga doon jullee kon julli ko moom yàqu na da ngay julliwaat wallahu am laaj bi ci topp mbokk mi nee na ku julli di jublu ab béréb liirum ñetti at ginnaaw ba mu dema dem ba xam ne fii du woon penku du woon xibla maanaam nan lay def waaw ku julli mooy xibla day li ci fuqahaay jàngale mooy bu fekkente ne nit ki ba muy laata muy julli doon laajte woon na laajte woon na def na ay góor góorgóorloom gëstu ngir xam xibla bi ginnaaw ba nag mu dàkk fenn julli mbaa ñu wax ko fenn mu dàkk fa julli kooku su demee ba xam ne fi mu julli woon du xibla bi itam nag du baamuwaat julli ak lu mu bari bari waaye bu dee koo xam ne nag daa dem ci ab béréb xamul nu penk nu xibla bi féete laajte wut defut benn effort pour xam xibla bi féete xanaa daa xool fa ko neex rek mu jublu fa julli kooku su demee ba ginnaaw ba mu xam ne fa mu jublu woon di julli du penku day xool ba xam ndax lam mooyoon xibla bari na wala déet bu fekkee lam mooyoon xibla bari na euh, kon day baamuwaat julli googa ndax moom laajtewut woon xibla defut benn effort bu fekkee lam mooyoon xibla bariwut ba tey nag moom loolu dañ ko ko jégal du baamuwaat doonte laajtewut woon kon loolu moom mooy waxi borom xam-xam ci ku mooy xibla mu des nag ki nga xam ne dafa mooy xibla diir bu yàgg foofu borom xam-xam wut nañ ci am na ñoo xam dañoo wax ne bu xasee ëpp juróomi julli même bu fekkent ne da ngaa mooyoon xibla lu bari te laajte woon tam doo ko baamu kon mën nañoo jàpp loolu ndax mooy li gën a woyof xay na ci moom ndax comme toog na juróom-ñetti at di julli jubli ci bérëb boobu ko ko bëgg a baamu loolu dana metti te itam diine nag nekkul lu metti kon na rafet njort euh, te jàpp ne baax na comme daa jublu woon foo xam ne ak ñàkk xam moo ko waral te fexe nag ba euh, fu mu demati nekk fa gan balaa julli mu def ay effort laajte ba xam nu xibla bi féete doo ko julli wallahu am laaj bi ci topp mbokk mi dane e, kii da doon julli fàtte ju njëkk ba sëlmal ba noppi doo koo fàttaliku mu laaj ba xam hmm, ndax julli ga dina baax ak bu fekkee da koy defar nan la koy defaree waa bu dee ci ngirum imam Shaafi'i de ak ngirum xanafi ak xanaa yi nga xam ne ñoo jumhur fuqaha li ëpp ci ñoom mooy koo xam ne danga fàtte lu mel ne taaya ju njëkk jooju ba sëlmal ba noppi ba jóge fa nga doon jullee mbaa mu yàgg nga doog ko fàttaliku moom sa julli dina baax bu dee ci ngiru Malik nag ñoom dañ ne ku fàtte ay sunna ci julli ba sëlmal ba noppi doog ko fàttaliku bu fekkente ne la nga bàyyi woon dafa mat ñetti sunna waaye bu nekk sunnay wax lu mel ne kàbbar yooyu ngay kàbbar ci booy eh, sëgg ka siggi bu fekkee mat na ñett su boobaa moom kon julli ga day yàqu da ngay baamuwaat ñu ne it bu fekkente ne sunnay jëf la euh, lu mel ne euh, taaya ju njëkk toogaay beeg wax ji nga xam ne ay jëf la subaa moom bu dee ñaar kese la itam nga bàyyi ko ba seen moom it julli ga day yàqu da ngay baamuwaat kon ci ngiru Malik li gën a wér moom mooy ku bàyyi taaya ju njëkk ba seen ba noppi ba jóge fa nga doon jullee julli kooku moom yàqu na da ngay julliwaat da nga koy baamuwaat ndax da ngaa bàyyi ñaari sunna te sunna yi nga bàyyi itam sunnay jëf la mooy toog. taaya ak wax ki ngay wax taaya ji kon kooku day baamuwaat julleem bu fekkee ci ngiru maag la bokk walla laaj ci topp mbokk mi nee na yéefar bi nga xam ne dafa dugg ci lislaam ci weeru koor ndax bis dugg ci da koy woor wala déet ak ndax la weesu ca weeru koor da koy fay wala déet bu fekkee ci ngirum imam malik la ak ngirum chafin yi ab yéefar bu tuubee ci weeru koor dugg ci lislaam la des ca bëccëg ba rek moom lay jàpp moom lay woor dalay àggale ba jant sox la nga xam ne moo ko jiit nag ci ay fan ca koor ga moom loolu du ko fay loolu mooy ngirum Malik ak Chafin yi wallahu laaj bi topp mbokk mi nee na eh, xale yi nga xam ne seen way jur wu góor dafa nekk jullit seen yaay nekk chrétien seen wayjur wu góor faatu xale yooyu nga xam ne seen yaay chrétien ndax daañ doon seen wayjur wu góor woowu nekk jullit walla déet waaw góor bu fekkee dafa am soxna si ba noppi daal di faatu ñu bàyyi ay xale yoo xam ne nekkaguñu ay mukallaf bañ xam jan diine lañ am li gën a wér mooy xale yi dañu doon seen wayjur ndax dañu ne bu fekkente ne ay nit dañoo euh, soq ko ci ñaar ñu bokkul diine eh, am ku ca faatu ba noppi ñoom ñu nekk ay xale bokkuñu woon fenn boo maanaam bokkagul woon ci jenn diine su boobaa dañu ne àtte ca diina ja gën ca ñaari diine yooya te bu xoolee bu dee diine chrétien ak diine lislaam euh, ñun julli liñ gëm mooy diine lislaam moom moo gën te loolu yàlla wax na ko yonent bi sallallahu wax na ko lislaam moo gën diine ju moom kon nag xale yooyu nga xam ne dañoo nekk ay gone nga xam ne màgg guñ bañ xam ba xam lu ñuy doon bu ñu màggee dañ leen àtte ci seen diine yi bàyyi ndax mooy diine ci gën su ko defee kon dañuy doon seen wayjur woowu loolu mooy li gën a wér ci waxee borom xam-xam yi walla laaj ci topp mbokk mi nee na koo xam ne da nga am bari julli bari ko fay ndax boo liqaamee benn liqaam rek mën nga cee julli bari yooyu bari julli yi nga amee yépp wala boo julli gu ne da koy liqaamal waaw li gën de mooy julli gu ne nga liqaamal ko ndax julli gu ne dafa am liqaamu boppam doonte la nag bu fekkente ne dangaa liqaam benn liqaam julli ak julli ci des liqaamoo itam julli gi moom dina baax ndax liqaam bokk ci yi nga xam ne boo ko bàyyee julli gi day yàqu waaw kon lu baax la waaye soo ko bàyyee itam même boo ko tayee julli gi du yàqu kon li gën moom mooy def ko waaye soo ko bàyyee itam nag julli ga moom dana baax wala laaj bi ci topp euh, mbokk mi koy laaj bàyyi laat kan mu ne euh, ki nga xam ne dafa am soxna ba noppi sëy jigéen joo xam dafa amoon boroom kër maanaam mi jaaloo ñu dem a dem ba soxna sa tàggoo ak boroom këram bu njëkk ba ndax moom mi njaaloo woon ak moom dina ko sañ a takk walla déet waaw loolu boroom xam-xam yi wuute nañ ci donte li gën a wér ci seeni wax bu ñu ko dajalee moom mooy bu fekkente ne moom mi njaalo woon ak soxna soosu tuub na tuub gu sell soxna sa yi tuub tuub gu sell su boobaa moom dana ko mën a takk bu dee ci ngirum nag dañu ne moom bu fekkente ne moom góor gi moo sabablu tasuk soxna si maanaam moo sabablu daal tax soxna si tàggoo ak borom këram kon su boobaa ko mën a takk te saa yu ko takkee sax bu ñu ko yëgee dañ war dañu war a tas diggante ba loolu bu fekkee moo ko sabablu moom góor gi waaye bu fekkee sabablu ko nag Euh, njaaloo na ak moom def na bàkkaat bu mag a mag moo tax daa war a tuub mook soxna si yëpp euh, buñ tuubee tuub gu sell nag soxna si dema dem ba tàqali ko ak boroom këram boobu ci dogalub yàlla nga xam ne waa ji moom defu ci dara sa sababu ci dara suba moom li gën a wér ci waxee borom xam-xam mooy mën waa ji mën na koo takk ba léegi loolu moom mooy li euh, gën a wér waaye ñu bàyyi xel itam ne jaxase ab diggante ba ñu tas loolu bàkkaar bu mag mag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér ne képp koo xam ne dangaa sabab ñaari way dencante ba ñu tàqali koo kooku bokk ci ñun maanaam képp ku yàq ab diggante daal diggante ñaari way dencante ba tàqali koo am ca wala sax seen diggante neexatut yonent bi neen kooka bokkul ci ñun kon bu fekkente ne waa ji moom moo def loolu li gën a wér ci ngirum Maalik moom mooy kooka du ko mën a takkati ndax moom moo sabab ak tàqali koo ak boroom këram du ko mën a takk tasaare ku takkee dañ ko war tas waaye bu fekkee sabablu ko nag moom defu ca dara xanaa daa dema dem nag ba dégg ñu ne taax taaxal ko ak boroom kër bam moom mu takk ko fekk njaaloon ak moom li gën a wér moom mooy dagan na walla laaj ji topp mbokk mu nee na kan mooy xarnay ni qarnayni zul ni boroom xam-xam yi wuute nañ ci am na ñu wax ne ab yonante la woon am ñu wax ne ab buur la woon am na sax ñu wax ne am malaaka la waaye li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi nag mooy buur la woon bu baax boo xam ne bu maandu la woon ku daan dimbale ay ay nitam la woon waa dëkkam te itam ku daan tasaare diina jam nekkoon la euh, wax nañ ne mi ngi nekkoon ci diine Seydina Ibrahima alayhi salaam am sax ñu wax ne dafa jamonante ak moom kon li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy Zulqarnayni buur la woon bu baax bu gëmoon diina jam nekkoon mu nekkoon diina ju wér mu daan ko tasaare daan dimbale nit ñi Eh, loolu moo doon ci gàtt laaj ci topp mbokk mi nee na mutaan samma aminin <clears throat> eh, lan mooy maanaa samma foofu oh, li gën a wér ci borom waxi mufassiroon yi mooy sam samma fu makaan la boo xam ne mooy foofee eh, maanaam foofule yàlla dafa wax na jibril daal ku ju malaaka yi di topp la foofee ca asamaan ya wallahu taala laaj bi ci topp mbokk mi nee na ku dugg ci lislaam ndax daa war a sangu wala déet ak bu fekkente ne dafa eh, dugg ci lislaam ba noppi doo ko sangu ndax dugg gi dina wér wala déet waaw eh, nit ki boo xasee dugg ci lislaam nag wax ñaari baati seere yi moom dugg na ci lislaam moo xam sangu na moo xam sanguwut léegi ab la jàngaay loolu boroom xam yi sax dañ cee wuute am na ñu ne dafa war mu sangu oh, sangu gi nag kon saa ko defee rek baax na eh, li gën nag mooy mu def ko bi mu duggee ci lislaam ba noppi waaw dugal islaam ba noppi nekkub julli mu doo ko sangu am na ñu gis ne càngaay li nekkut lu war waaye luñ sopp la kon ci tënk rek moom mooy e, bu dugal ci lislaam ba noppi moom bu sangoo ak bu sanguut yépp diine lislaam moom wér na la gën nag moom mooy mu sangu wallahu laaj ji topp mbokk mi nee na ndax azaka des na ko jox ab yéefar wala déet li ëpp ci borom xam-xam mooy azaka kenn du ko jox ab yéefar seen tegtal mooy yonente bi muy farataal azaka rawatina azaka yi muurum ko dafa waxoon ne dañ koy jël ci seeni way woomal ñoom jullit ñi di ko jox seeni way ñàkk ñoom jullit ñi moo tax boroom xam-xam yi ëpp ci ñoom ñu azaka kenn du ko jox ab yéefar wallahu taala alam laaj bi ci topp mbokk mi dane dafa dégg ab xaddis bu ñuy wax almaru maaman ahabba mu laaj ba xam loolu moom mooy lan almaru maaman ahabba mooy nit ku nekk kim sopp moom la ko yàlla lay booleel moom lay àndal yowmal qiyaam la ko waral mooy eh, benn saxaaba bu ñëwoon ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko eh, kañ la saati taxaw yonente bi ne ko loo ko waajale ba tax nga koy laaj mu ne ko man de du ak jaamu yàlla gu bari waaye sopp naa yàlla akub yonentam yonente bi ne ko nit ku nekk ko sopp moom la la yàlla booleel am na it ñu wax ne dafa am benn saxaaba bu noonu yonente bi waa loo xam ci waaj yoo xam ne dafa sopp ay nit te mënut a jëf lu baax lu mel ne lañ jëf yonent bi ne ko almaru maa man ahabba mooy bu ëllëgee mook ñam soppoo ñoom la yàllay boole e, daraja wala kër ci àjjana ni ko borom xam-xam firee nag mooy ku sopp nit ku baax di ko roy ci lam daan jëf ci lam daan wax di moytandiku lam daan moytandiku bu yowmal qiyaama yàlla mën na laa boole ak moom ngeen kër ci àjjana e, wala ngeen bokk jenn daraja moo tax e, Anas ibnu Malik nekkoon liggéey ko di yonent bi sallallahu alayhi wasallam lool nee na man dey sopp naa yorante bi sopp naa abu bakar sopp naa omar sopp naa diw ak diw ci saxaaba yi damaa ngi dafa njot di ñaan yàlla mu boole ma ak ñoom yowmal qiyaam kon daal li muy tekki ci gàttal moom mooy ku sopp ni te di ko roy di jëf lu mu daan jëf sa kem kàttan di bàyyi lu mu daan bàyyi ci ay ñaawteef wala boog ci ay bàkkaar eh, bu yowmal qiyaam yàlla mën na laa boole ak moom ngeen bokk génn kër mbaa génn daraja wallahu taala kon dafa mel ne mbokk lii moo ñaan yàlla mu nangul ñu te defal ñu dégg ak topp euh, di leeral rek den am na ñaari laaj yoo xam ne euh, ay mbokk laaj nañ ko te tontuwuñ ko euh, li ko waral nag mooy tontee dafa dañ ko teewloogut dañ ko xamagut kon dañuy jéggal ci ñaari laaj yooyu bu ko defee ñu gëstuwaat ko incha allah ndax tam bëgguñoo wax nag lu leerut bëgguñoo wax lu leerul ci diine moo tax nañu jéggal ñu gëstuwaat ko buñ ko xamee incha allah feek Euh, samedi bii di ñëw euh, danañ leen ci tontu bu soobee yàlla yeneen mbokk yi nga xam ne dégguñ seeni laaj nag euh, nañ xoolaat heure yi ñu laaj ndax laaj yi dafa am heure bu ñu koy dugal ak heure bu muy yam koo xam ne dugal nga sab laaj lu jiitu midi laaj boobu duñ ko tontu koo xam ne itam da dugal sab laaj ginnaaw bu quinze heures jàllee ba ca laaj boobu duñ ko tontu kon laaj yi samedi lañ koy dugal di tàmbalee midi ba 15 heures. laaj bu fu nit dugal lu jiitu loolu mbaa ginnaaw loolu laaj boobu du bokk ci yi tontu kon loolu lañ bëggoon a leeralaal rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi